station internet et digital euh, bu Orange euh, ku ne xam taxawaayu Orange fii ci Sénégal surtout ci wàllu digital bi euh, tey nga ñëw seet suñu pour wax ak clients yeeg sénégalais yi nga xamee ni ñoo fidèle toujours ci Orange surtout côté digital bi ñu ngi lay nuyu madame Khady Niang bàyyi la nga jox ñu message bi d'abord ñu doog a dugg ci question yi. maa ngi lay fay Pape maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp. di leen ziyaare ci tabaski bi ñu jóge di leen baal àq yéen ñëpp di leen baalu àq di jaale Sénégal bi yëpp si kilifa yu tedd yi fi jóge yal nañu yàlla tas ci seen barke te xare leen àjjana yi gën a kawe. di gën a ñaaxaat itam sénégalais yi li ngeen wax ci plateau bi am na solo ci wàllu mbas mi. donc ñun ñëpp nañ gën a fagaru. ndax jóge gu fi te suñu responsabilité ñun ñëpp. Mmh. voilà loolu laa bëggoon nuyoo. voilà te boobu boobu ba tey yéen a ngi jàppale sénégalais yi surtout parce que période bi nga xamante ni crise bi ñëw na euh, euh, ñu bëri li ñuy toog ci kër yi euh, moo ëpp li ñuy liggéey ci kër yi moo ëpp bi crise bi ñëwee ci lañu gën a xam njëriñu service internet ak digital bu Orange. exactement exactement Pape Cheikh tey jii nii 10 millions clients ñu ñuy wóolu. Mm-hmm. li tax ñu ñuy wóolu c'est parce que dañ leen di déglu. Mm-hmm. di leen defal lu ñu bëgg di leen defal lu ñu soxla. Uh-huh. ci Covid bi Orange dimbale na askan bi plus de deux milliards. Uh-huh. plus de deux milliards. Uh-huh. Orange Sonatel dafa nekk entreprise bu responsable boo xamante ni xëy na clients yi ñooy tax ñuy am li ñu am de. mais lépp dañ leen koy delloo ndax ñoom ñoo ñu tax a jóg. def nañ plus de un milliard ci région yi pour seen développement. dinañ dimbale plus de cinquante start-up. ay jeunes pour ñu nekk ci économie numérique bi ñu ngi koy def tout le temps recette fiscale Sénégal yi dinañ si contribuer en 2019 à plus de 254 milliards loolu yëpp ñu ngi koy def askan bi donc tey jii ni Orange dañuy findel chaque jour mhm. ni population Sénégal bi moo ñu tax a jóg mhm. dafa tax ba ñu indi Illimix yu bees yi mhm. réeroo bi nag bari na bari torop clients yi mer nañu clients yi mere nañ ñu daal mais ñàkk waxtaan la suñu waxtaan yi dinañ juboo loolu ñu fi indi tey pour ñu waxtaan ak clients yi wax leen ni orange ni mu yàggee nekk si li leen di soxal di leen jàppale ci tànk yooyu lañuy nekk ba léegi te tey lañ si gën a nekk sax nag su ma jëlee Ilimix 500 bu bees bi Ilimix 500 bi mi ngi am 300 imo actuellement nii avant 200 émo la amoon ah gëm naa ni loo xamante ni njëg bi weesuwul ñu yokk si cent emo gëm naa ni yokkuwul te li ngeen si xamul mooy plus de 60 pour cent des clients Ilimix boobu la ñuy jël donc pour plus de 60 pour cent des clients dañu yokk cent emo ci même prix mm-hmm. donc jàpp naa ni yokkuwul ñu ñëw ci Ilimix 3 1300 ñu ne am na ay clients yoo xamante ni appels moo leen gën a soxlaan mm-hmm. ñu ne leen ci Ilimix boobu dañ leen di defal non seulement mu ñëw semaine mhm. au lieu de Illimix 1000 bi nga xamante ni journée la donc ñu indi ko semaine def ko 1300 ah. joxe 200 minutes def 1 giga internet def 100 SMS mhm. donc mu cent dikkee cinq francs client bi nga xamante ni chaque mois chaque chaque jour dafa doon dépenser mille francs mhm. gëm naa ni foofu wàññi am na fa ñëwaat ci client bi nga xamante ni internet bi moo ko gën a soxal ñu dem ci 1300 6 000 francs jour encore une fois ñëw 1300 semaine jox ko 2,5 giga d' internet au lieu de 1000 francs par jour ak 500 MO donc ñu multiplier ko par 5 ba pare yóbbu validité bi une semaine ba pare def ko tout réseau communication et tout réseau la dolli si 90 minutes d' appel def si 100 SMS gëm naa ni foofu yokk am ñu ñëw si Illimix 4500 bi ñu jox nit ñi 300 minutes d'appel tout réseau def 10 giga internet def 100 SMS génne offre bu bees muy Illimix 7500 bi nga xamante ne amul woon ci suñu catalogue mmh. boobu ñu def si 600 minutes d'appel def si 23 giga d'internet 23 mmh. def si 500 SMS ak ñi nga xamante ne seen consommation internet nag gën a jéggi dayoo ñu defal leen Illimix 14900 def si 3000 minutes 3000 minutes tout réseau cinquante giga ak mille SMS donc dañu déglu client yi xool li ñu bëgg indi leen exactement li ñu soxla te jii nii coow li bari na torop si 1900 bi ñu dindi. Mm, c'est vrai que coow li bari na torop quand bari na bi ak 5900 bi parce que. Euh, mbaal ma rek ah euh, wax nga ko sànq li bari na te yaa géré service digital bi xam naa ni Ibou temps yi sonn na trop ci Twitter bi mm. il est réactif loolu ñu koy félicité li mu def ni baax na parce que àdduna waxtaan na boo ñuy toog ne dañuy déglu clients yi loolu nekk na lu am mm-hmm. loolu dafay yokk confiance entre Orange ak euh, ak yi ah. exactement mm-hmm. léegi li ñuy réclamer ñoom di ci ëpp comme ci internet bi li ñuy réclamer lu ci bari 5900 bi nga xam ne dañ ko dindi mais boobu jar na ñu bu fekkee dafa am yokkute wala dafa am wàññi xamante ne da ngeen ko ci wàññi wala kon nombre de connexion bi nga xam ne da bu leer su ko defee ñoom euh, clients yi gën a mën a comprendre loolu dinaa ci sawar dinaa ci sawar bu baax te gëm naa ni su fekkoon am na lu ñuy làq-làq wala lu ñuy nëbb lu mhm. ñu sawar a ñëw si plateau toog di wax te télé lañ nekk su ma ñëwee ci cent mille neuf cent bi dindi nañ ko di dëgg la mais bàyyiwuñu clients yi ak seen bopp. Mhm. dañ ne la jëlal Illimix sa quatre mille cinq cent bi. Mhm. nga yokk si mille trois cent bi. soo leen boolee ñoom ñaar du cinq mille huit cent. Mhm. nga boole avantage yi. donc pour cent francs moins cher cent francs moins cher tu te retrouves à peu près ak li nga amoon ci cinq mille neuf cent bi. wala ñu ne la jëlal 1300 semaine bi su fekkee internet bi moo la gën a soxal nga jël 1300 nga jël ko chaque semaine. 1300 fois 4 du 5200 au lieu de 5900. Mhm. ñu ne la nga am 10 giga internet te yaa ngi économiser 700 francs xam nga alternative ñëw na. Mhm. ñu ne la bi nit dañ ko d'accord. mais suñu ki Kirène mi ngi fi. Mhm. Kirène 1690 la. donc dañu changer suñu gam mais comme ni ñu ko tàmm wax ni. dañu nekkal suñu client yi. du ñu yokk mm-hmm. du ñu yokk parce que ñoom ñoo ñu tax a jóg mm-hmm. coow li bari na itam si da ngeen jël giga yu bari yóbbu ko guddi dëgg la dañ ko yóbbu guddi mm-hmm. li tax suñu téléphone yi ñun suñu nelawee itam téléphone yu nelawuñu mise à jour yi nga xamante ni dañ koy def mise à jour yi ñuy def nañ ko programme yi guddi ah, suñ ko programme yi guddi du consommer suñu ay données duñ ko yëg téléphone bi da ngay xëy da ngay dugal sa Illimix. te du jóg nga ni sama Illimix si jeex na fan laa dem désactivé désactivé données mobiles yi mhm. téléphone bi dafa am ay cache mhm. dafa am ay application yi nekk ci suuf yi nga xamante ni day tourner mhm. loolu mooy consommer données yi te nit ki du ko yëg du ko xam donc ñu ne la dañuy jël une partie de li ñu lay jox defal la ko guddi nga xamante ni lépp li nga xamante ni day consommer sa données te yogoo ko jaar foofu léegi la journée nga utiliser sa bëdee internet sa quota internet bi nga xam bi nga am pour journée bi loolu lañ def est-ce que communication bi waxul woon jiitu un peu parce que aujourd'hui euh, personnellement j'ai l'impression que dañu mettre la charrue avant les bœufs euh, parce que loolu moo waral quand même frustration wu mm. sénégalais yi comme vous l'avez euh, euh, noté on n'est pas sans savoir que yéen a ngi doon def ay jéego pour vraiment euh, mën a alléger yenn yi askan wi mais ñoom bu ñu demee ba ils ont l'impression que amatuñu monopole wala amatuñu main mise ci li nga xamante ñoom ñoo koy jënd euh, dafay poser problème est-ce que aujourd'hui communication bi moom wax nga dëggu coro te dinaa kontaan sawar ci tontu li nga wax tey jii ni ku jàpp ni li nga def baax na nga tëral sa stratégie communication mhm. nga génne ko ni ñu ne comprendre ñu li ngeen def dara baaxu si mm-hmm. du ñu naagu dañuy taxaw mm-hmm. ne nañ dem waxtaan ak nit ñi wax leen ni fi ñu tegoon suñu tànk boobu ba léegi mm-hmm. fa la ñu gën a teg suñu tànk suñ ko dolliwul sax nag looloo waral ñu wër plateau yi di wër rajo yi di wax nit ñi ni réeroo moo fi am wala réeroo amul ñàkk waxtaan a am moo tax ngeen def seen live yeeg actuellement ci réseaux sociaux yi orange ngi expliquer gën a leeral su ko defee. c'est bien loolu la c'est bien la ngay waxee la ngay kaase eh, eh. connexion orange mais Pape Cheikh est-ce que est est est-ce que gars nekk yow yaa nekk ibu bu orange parce que li ngay wax ni loolu la ibu di wax orange ah sama émission bi ñu ñu ñu jënd ko te ñëw toog fii di wax mooy seen yi ngeen def da ngeen marqué dama ni coow li coow li orange ku fase orange di nga ko baara sew. séminaire atal leen. yaay Ibou waaw waxuma la Ibou rek waaye coow lu coow lu coow damaa bëgg boo bàyyee bàyyil waaye mun maa bàyyi ba pare toog ci der bi loolu mënul ne coow lu coow lii ngeen def nii daal kontaan naa ci. expliquer nangu waxtaan ak ñoom gën leen a détaillé loolu la client di soxla. parce que nit ñi kenn moomu leen en fet ku ci nekk am nga liberté wu abonné fu la neex. mais tey bu ngeen defee lii ba gis ni am na ñu jóg di wax mu jaral leen conférence de presse jaar ci télé bi waxtaan ak ñoom euh, euh, def ay jotaay ci internet bi et tout ça ñu lu dul rafetlu ko quel sera le message pour tous les clients Orange Euh, juste avant le dernier message pour tous les clients Orange damay rebondir juste si li nga mujj wax. Mhm. Euh, Orange mi ngi créé plus de 2000 emplois directs. Mm -hmm. est-ce que xam ngeen ñaata emplois indirects lu Orange créé. Mm plus de 160 000. c'est bien ça. kon ñun ñëpp orange lañu mm-hmm. man orange la falaay laay liggéeyee yéen ku ci nekk xam ngeen kuy liggéey orange mm-hmm. ku ci amul mbokk am nga ci xarit ku ci amul xarit am nga ci xame donc ñu ni neen la mm-hmm. ñu ni neen la donc le message que je vais lancer mooy clients yi nañ ñu gën a wóolu nañ ñu gën a wóolu te xam ni orange àdduna du gudd tànk ba muy def loo xamante ni du pour intérêt client yi mm-hmm. ñoom ñoo ñu fi mës a tax a jóg ñoom ñoo ñuy gën a tax a jóg te ñoom ñoo ñu yokku courage mm-hmm. ñoom ñoo ñu yokk fit yokk ñu cawarte ba nga mm-hmm. xamante ni lu mu metti metti metti metti dinañ ko xare ndax ñoom ñoo ñu tax a jóg leer ba leer du ko tànnee moom ndax wax ji rek na yaram boo xam ne lu <laughs> <laughs> ah, <laughs> donc je rappelle que yow yaa yore yaa chef euh, service communication internet ak euh, digital euh, bu euh, orange nga jaaroon fi tey ngir ñu ñëwaat rek ci offre yu bees yi nga xam ne nii moom ngeen jagleel client yi lii mooy àdduna waxtaan bu juboo et que c'est clair tey ci bopp ñu bëri te jarul bàyyi communication bi c'est toujours bien di expliquer pour que nit ñi di gën a comprendre merci Euh, kontaan nañu 11h14 euh, mooy euh, doog a jot démb maa ngi leen di wax ni baax na autorités yi nga xam ne ni ñoo fi ne di jéem di jàppale nit ñi ak crise ko Covid 19 bi bu ñu génnee xaalis di ci jàppale nit ñi ñu ci communiqué seen programme de résilience yi maa ngi gis ni artisans yi xam nga fan yi la ñu ngi kaas ni jàppale wuñ leen gouvernement bu Sénégal nag maa ngi koy gis ci ndimbalu Dame Diop. jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dekk lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ak surtout artisanat euh, am na xaalis bu bëri boo xamante ni teg nañu ko euh, pour dimbali artisan yi. yi pare ku ci bëgg euh, am ci ndimbal yooyu la nga nekk artisan mën nga bindu ci seen site internet muy 3w point mefpa mefpa ñu ngi koy bindee m e f p a point gouv point sn. dafay compliqué ci man xaw ma nag ndax artisan yi dinañu mën lii ñoom it simple ñu dara xam nga tamit maa ngi leen di jéem a jàppale mais tamit ils sont pas simples man gis nga man man daal damay faf def gabon parce que lii man may war a dugg ci internet bi www di bës di bës dafay simple ci ñoom ñi jàng waaye man mii di di defal daal daal li ngaay nan laay duggee me e fe e, a point gouv point sn ah bon nañ ko def parce que euh, li ci am solo mooy euh, koppar bu takku bi ñu teg quand même pour jàppale leen ci période bi la nga xam ne période de crise la euh, donc allez ci www.m mefpa.gouv.sn Euh, m e f p a point gouv euh, point euh, sn si vous êtes artisan et que ngeen bokk ci impacté yi parce que presque ñëpp a impacté mhm. sauf orange bien sûr <laughs> parce que defe naa période bi nga xamante ni crise bi ñëw na quand même ñun ñëpp a toog suñuy kër entre télétravail commentaire léegi ñëpp a yore télé mhm. whatsapp yi ñëpp ay dugal facebook et tout ça voilà donc euh, ñi nga xamante ni ñoo nekk ay artisans euh, euh, doon kaas fan yële yëpp mën ngeen ngeen rapproché wu ci ministère artisana am na koppar xaalis bu bëri. très bien il faut moo wax leen ko am na xaalis bu bëri boo xamante ni jox nañ ko ministre Dame Diop pour yéen donc mën ngeen bindu. ci ay artisans ngeen dinañ ah, fexe ba trouver non non pas ñun. li nga wax li nga wax lu mu compliqué noonu. non bu naree compliqué dem ba jam ñaajo ministère ba xaalis bu bëri le président Macky Sall jox. loolu euh, boo ko waxee dinañ xam nan la ñuy bindee site. voilà <laughs> waaw waaw bu trouvé xam ne dëgg la trouvé moyen nan la ñuy <laughs> bindee site internet bi nan la ñuy def. su ma gisaatee beneen information boo xam ne ni jëm na euh, ci ndimbal yi nga xam ne ni euh, mu ngi juddu ci période bi li nga xam ni presque ñëpp dañu impacté. dinaa leen ko wax mais bi ma ci xam daal mooy ni mën ngeen a dem ci site bu ministère ministère de l'artisanat voilà c'est plus simple site internet bu ministère de l'artisanat bu fa demee euh, di ngeen mën a bindu euh, bu ko defee euh, ngeen mën a bénéficier wu ci appui wu état bi face à la Covid président Macky Sall Euh, ak enveloppe bi nga xamee ni joxe na ko pour dimbali euh, artisan yi euh, parce que pour la plupart ils sont impactés barki dem rek maa ngi dégg ñuy kaas donc defe naa lii waxatu bu tasee gersu la boo kaasee soxla ñu yëkkati pour jox la mën nga dem ci site internet bu ministère de l'artisanat li ci des nag mooy defe naa jàll ci anniversaire yi puisque nous recevons beaucoup de messages xanaa madame Khadiña li ma lay ñaan rek nga may ñu internet fii ci fii ñu nekke ndax dama foog ni ñi ñu dénk internet tu télé bi ñoom dañoo nay ñun fii ñu nekkee nii dañu am problème internet de ma wax la ko may ñu ñu am. dina ñëw balaa may dem li leen yuusu dénk ñoo ko moom. balaa may dem. ah dina ñëw. fii nii nii dañu am internet. di ngeen am léegi voilà ñoo ko ñaanal suñu bopp nag donc plateau bi suñu internet bu ñu ko amee ñu ngi xaar ba keneen joge beneen service ci télé bi ñëw fii di di wut fii parce que nous on a des problèmes quoi pour nous ko voilà yëpp da nga koy wax. <laughs>